asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki dëkk yi ñu wër ñu ngi leen di ziar di leen jaajëfal di ñaanal Serigne Mountakha yàgg fa loolu te ak njaboot seen tuwaay yëpp tey ñoo ngi fi ci seen émission asrar tey ñu am gan gu doy waar bu ñuy wax sëñ Cheikh Fall Lo di doomu sëñ Cheikh Lo Gossas nga xam ne Sénégal yëpp xam nañ ko kon duñ def lu jox sëriñ bi mu nuyoo ñu daal ci biir waxtaan asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen mbokki waa télé bii di Murit info di len nuyu bu baax te di jital ci nuyu be ziar bi serigne Mountakha mbake di ñaan sun borom yagal ko fi mu wér ak mbolem njabootu serigne touba ki di ñaan uh, serigne Cheikh Jëmb Fall sun borom yagal ko fi mu wér ak mbolem njabootu Cheikh rafal gi ak mbolem këri dina yep da ngeen def ci mbokk yi comme ni waxee sànq ki ñu am mooy caatum suñu Cheikh Lo mi nga xam ne kon fu waay nekk ak loo gàtt gàttu dégg dégg nga turam ci lu ci wàllum lasraar ba ndax bari na ay mag ñu naan jóge ci dëkk ak dëkk kon euh, sëñ Cheikh Fall euh, lan moo indi muy tur ak colom gi nga xam ne ne fi nga fa nga féete te euh, ñu bëri di wax ne yaa ngi def ay kiim daan ginnaaw bi nga nekkee caatum sa waaye waaw Gossas moom liñ ci leeral mooy sama baay baayam dañ ko fa yabaloon mu nekk fa yor fa donga yi di leen jàngalal xoloon di leen xamal diine yàlla def nag mu nekk ak baayam ba baayam jóge fi yàlla may ko ci xam-xam mu sanc ab dëkk tudde ko Daaru Raxmaan sun boroom may ko lu ne nag no gas fab teen lu ne dimbali nit ña yor daaray alquran di jàngale te it fu ne nag nit daa fa jóge di ko fekk si yàlla mayoon ko ci pal ak poli yàlla mayoon ko ci faj euh, ci rab ak jinne yu bare bare bare bare lu nga xam ne néewaa ci réew mi kuy jàng lasaraar ba kuy tudd lasaraar xamul sëñ Cheikh Lo loolu ba tax na loolu moo tax fu waay toll bu jaaxlee ci mbir rek dañ naan ko demal ci sëñ Cheikh Lo Gossas ndax ku ne jàq na bis njàqaram dañe foofu loolu moo indi Serigne Cheikh Lo ko bëgg waaw colom sama dëkkum maam la euh, sama wàllu wajuru jigéen euh, yaayam day sëtub dammel maajoor te colom di dëkk boo xam ne dëkk bu ñëpp xam la ci cosaan di dëkk buur di dëkk garmi yàlla defit muy dëkk boo xam ne si lu bari fa lañ koy defee yàlla defit yàlla may ñu fa ay dëkkaale yoo xam ne si muy ci lu mel ne ay xeeti jinne yoo xam ne si yàlla def na ni foofa lan farewoo. gis nañ génn lu bëri bi doo ci yàgg ana luy sabab li tax duñ ci yàgg mooy sama baay daa wax ni docteur warta fanaan àll ndax ku yor ak njaboot ci nit ak jinne waroo di fanaan àll comme génn bi du mën a ñàkk yenn saa yi dañuy génn rek ci lu mel na ay semaine wala wala ñaar fukki fan wala fukki fan ak juróom daal di ñëwaat ndax it euh, ña soxla euh, ba di la woo ca réew moomu réew mu nga mën a dem euh, ñu ko ëpp ngi fii toog di la xaar ñu ko jinne waaw loolu de moom dañ koy dindi bu dikkee ci dañ koy dindi. day ñun sunu baay dadaa faj yoom ku yoom judduwaale sama baay faj na ko ku judduwaale bi yoom sama baay faj na ko bu te lam ko faje woon loolu yi xam-xam la te bi muy génn àdduna doo ko fee bàyyi kon ki judduwaale bi yoom bokkut ak ki nga xamee ni daa daa mënoon ba mu yàgg mu tële kon euh, kiy faj ku ku judduwaale bi yoom faj ku wàccub laal moom <laughs> defe naa du ko war a jaaxal waaw. ci foofu la ñu nekk ba léegi ñuy gis jigéen ñu bëri ñu xam xam ne dañu am dañoo nekkaale wu xam ne loolu xam nga fi mu ne bari na wax ci domaine boobu waaye euh, bari nañu ci xam bari nañu ci xamul man nag duma contre kenn waaye mbirum rab dali lu ndax fi ne nit ki bu gënee àddina am na lu ñuy génne ci moom loolee dañ koy gas suul ko loola day dund comme ni muy dunde loole nag dañ koy neexal di ko defali sarax mu tax muy aar nit ki ak di ko mën a feguloo ci yu baree baree bari bari na ñoo xam ne si nag euh, jinne comme niñ bëggee ay soxna na xalé ñom duñ ko bëgg ndax ñom dañu wax ni euh, bokk na ci li leen di tax a gudd fan moy di di di ak ndaw di and ak ndaw bo gisé ñaar ñaar da nga gis jigéen go xam ci man na toll fo xam ci euh day taru lool waye am borom ko jafé ko waye bu demee bay dugg ci ay 50 ans da nga gis ñu tak ko ndax la nek ci mom la dindigul ba waxtu demam jot mu dem ndax budé dee mom do and ak borom bi jaw mom ku andal ba nga man ba mëna to rek mu baat moom dala fee ba waaw ok ci wàllu ubbeeku am nga ci tegtal mo nga ku ku ekti ci yow tu liggéeyam bu taxaw wala ki mu mu bëgg bërëb kay wala yu démé non am ci jafé jafé ndax am nga ci tegtal yu nga xam ngeen koku bu yalla defee ngeen jubóo ba ngeen jëflante bu soobee yàlla incha allahu rabbi moom neewaana nu jëflanteeg nit ba noppi te lam lam bëgg gisu ko ndaxit man du ma tëb tëb jëflanteeg nit nit te bëgguma nit di dikk ci man di ma wax nangama ma dal man loolu bëgguma ko man soo ma woowee bu dee téléphone la boo ma joxee sa turu ndey ak sa turu ak sa tur. moom ba ma waxaat dara soxlaatuma ci yow dara la nekk ci yow di sa jàngoro danaa la ko wax euh, ki dikk nag ba ba ba déplacé wu ba fekk ma ci tool yi kooku moom beneen affaire la moom euh, mbirum ubbeeku doomu aadama yàlla da koy bindaaleeg wërsëg waaye wërsëg da ci am ñoo xam ne si léeg-léeg seen wërsëg day am ay gàllankoor négandiku nga xam ne ne waaw am na ci ñoo xam ne si lu mel ne mooy du di tëj am na ci ñoo xam ne si lu demee ni ki euh, ñàkk sarax da di tëj am na ci ñoo xam ne si am na ay bis yoo xam si buñ ko jógee mënuñoo am nit nag day toog ci dëkk ba wërsëgam jeex fa léeg-léeg nga gis benn waay woola ci àll bu ne la man damaa ngeen réew sàngam waaye dama daa am diir sàngam ba diir sàngam waaye fii ne amatuma xaalis loolu mooy waral ni rawaani dëkk ba danoo noppi ci moom loolu la koy waral mooy ñu jëm moom ji toj mboolem mu nekk ci moom defaat ko lu defal ko lu ko ubbi mu ubbee ubbeeku bi ñu tàmbale won ci la ñuy ñëwaat ndax eh, am na ay tegtal yu gaaw yoo xam ne comme eh, yow yaay ya borom yooni jooni yi moo xam ne mën nga koo maanaam jàppale askan benn rek bu nga xam ne ku ku yëfam loolu boo ko jëfandikoo daal di war war a mën a gis daal pour xelam ne ah man kër bi sàngam sëñ sëñ Cheikh Fall Gossas keroog dégg naa ko ci émission sangam mu joxe woon tegtal sàngam waaw waaw lu mel ne ubbeeku eh, bokk na ci ku bëgg alal bu fekkee ne dafa bëgg lu mel na mucc ci wàllu alalam di sarxe lu mel na gerte kemb ak xorom ñaari ñaari néew néewaana nit di sar di ko sarxe mu ay mbiram di di di dëgër daal da koy ber ndax <laughs> boo ko beree mooy tax ñu mën koo jëfandikoo waaw. te kurus bi waroo yi nga xam ne moom laay gis ñenn ñi di ko yor wala man moom laay yor ndax gis naa mu weesu ay per te liwu téeméer gi ni niñ xamee kurus ana luy waaw kurus gi sax moom daanaka xëy fii day palaasam rek waaye euh, ak ak ak cantukaay du loo xam si euh, ku ne lañ koy jëlal du loo xam si ku dikk ñu jëlal ko ko day am aajo yoo tax yu tax ñu ko ci jël liñ ci wax day am ajo yi tax ñu ko ciy wax waaye ajo yi ku mën a doon ba tax ñu jël su kurus gi ba tëj bunt bi ratt ajo yi ku dul yàlla mënoo ci dara. yi yi xewal muy ay football ak ay bëreeg yooyu moom jëriñu ma jël kurus yooyu yooyu <laughs> yooyu ma jël kurus. ndax euh, bu dee football bit yi ma lay jox bu bu bu ko joueur yi dugalul jinne yi mën nañ koo dugal euh, <coughs> bu dee score li ci ëpp lin man mooy trois bi yi ñuy joxe ku dul yàlla mënoo koo tee dugg waaw bu dee ci wàllu mbëri moom ndax dafa am mbër fu muy tollu foo xam si da war a waajiwaat waa dafa war a waa waajiwaat ñëw nu sampal ko defaraat ko am na ñoo xam si soxlawuñ loolu am na ñoo xam si ndam rek nga leen di ñaanal ñoo it euh, buñ dikkee dañ leen di defal xaptal lu leen di xaptal xam nga mbër mën naa jóge ci euh, ci dëkkam wala ci këram am gàllaaj lool diggante cinq minutes ñu daan ko ci moo tax ñu bari léeg-léeg nga gis ñuy am problème ci wàllu seet ci wàllu bëre di way daan buñ dikkee ba ci stade bi euh, yëf yi wëlbatiku mook football ñooy am euh, saa su rek mën na noo wëlbati victoire bi waaye yooyu euh, man da cee am Euh, ay bis yoo xam ne si muy football di bëre moom du lu mën a doon ci àddina loo mën a yor àddina ak la ci biir boo dikkee du ma du ma jëflante yow muy lu demee ni ko àllarba ak euh, ak ajjuma te it léeg-léeg it nit doxee fu sori ñëw ci bis yi dañ koy jox ndigalul mu wàññeeku ndax da ci da ci am bis yoo xam si Euh, li ñuy joxe lépp ci lañ koy ñaan waaw. ñu jógee ci ay élection am lu fi coow lu fi am am kilifa yu génn di wax ne élection yi junne yi dañ cee participer ñu dëgg naa ay élection ndax jamono bii nii am na ci ay tegtal rawatina gouvernement bees bu ñu formé ñiy wàcc dëgg am direction yoo xam ne am nit ñi ñoo xam ne ñi ngi xel yaar ndax danañ ko jot ak duñ ko jot ndax am nga ci ñu nga xam ne ñu la ci bàyyi xel. waaw mbirum élection nag moom euh, amoon na luñ ci waxoon ba tax xëy na moo indi émission bi euh, bi kilifa yu ñu waxtaanal ñu am lu ñu ci laaj ñu xamal leen ne leen euh, kii fi nekk jarul di daan ndax fii ne falu na ndax juróom-ñaari buntu yi nga xamee ni moom la ñuy follee ci barhut xool naa ko waaye benn bu ma ci jaar rek damay fekk mu nekk ci kanam te du neex a folli te it amaana ku yàlla dimbali mu bañ a dugg ci mbiram waaye ku yàlla dimbaliwul dëgg bu diggee ci mbiram dana yàqule lu bari euh, amaana ñu bari dañuy jàpp ne euh, moom léeg nga gis nit di ko dàkk ba jàgg mu mu mu jékki mel na ko def benn fóot du loolu euh, xëy na mën na loo ba nga def dara mais ki mu àndal ci jinne yi day kàngam day kilifa da ci am euh, li ñuy wax asri na kàngam muy ñaar fukki jinne yoo xam ne si gëmunu euh, ñoom wàllu dialogue bi ngay dégg féticheurs yi di ko yor ñoom ci yooyu la ñu nekk ñooñu nag ku xës ba xës ba ni ko dann loo mën a liggéey ak loo mën a def ñooñu mënuloo leen dara dégg naa fi nag ay wax yu bari euh, nit dëkk na fii wax ma ne ko euh, nguur si dana falwaat amaana sax booba euh, tegunu ko fu bari waaye fañ ko teg mooy xamul li ñu xam euh, te xam ne lu lu lu sun borom di ko dimbalee la ba tax na am na ci yoo xam si daanaka boo boo ci xasee ba xam man ku ma ciy jox ay millions lu mu mën a doon lu tax ma ñaan ci waaw waaw. sëriñ Lo Gossas di caatum sëñ Cheikh Lo Gossas ñu Sénégal yëpp xam suñu laaj mu jël la ñu ñëw moom ci pour jeexal émission bi eh, sëñ Cheikh wàllum set ah. nit ñi ni ñu ciy waxee bëri na ñi ñii di wax wàllum pétaaw ñii di wax wàllum gësaane ñii di wax ci wàllum kaasu ndox ak yu bëree bëri xeet yu bëree bëri bëri ci mën a wax waaw mbirum set de moom eh, man naa ni sama baay da ko dàqoon ci ndax ki tas man doon usulul rablu ba pare way ko way ci yeneen ak yeneen ak yeneen tëgg ci yeneen kooku ñi ko ci mën bariwul waaye yooyu yëpp xëy na day yàgg ñun moom ku nu woo euh, jox ñu turam ak mu ci àddina mu tudd ku ko mën a jur bu toogee 15 minutes rek gën ngaa yàgg trent danañ ko wax lu bari ci moom. soxlawu nit nit dinu woo dinu wax euh, nangam lan aju nangam lan ki liñ ci dolli mooy bu fekkee yenn tawat yi ñuy xam ci jamono ji yooyu moom duñ ko faj euh, ku yàlla natt ci wàllu rab ak lu mel ne jinne yooyu moom manees na ko ñaanal nit ki fexe ba lu bari yàlla musal ko ci waaye am ay tawat yi ñuy wax ay hémorroïdes ak yooyu noonu moom man yooyu dama ko faj waaw euh, xanaa di leen ñaanal bu baax a baax a baax di sant bu baax waa dëkk bi waa Colom euh, di sant euh, waa Gossas bu baax di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi. di ñaanal kilifa diine yépp nu yàgg fi di ñaan ci réew mi jàmm ñaan sunu borom may ñu eh, ndigalul jëfe ak topp te yàlla musul ñu ci mooy ak lekk lu lewul te yàlla dimbali ba ñu nuy seqal rek ñuy seq ak ñoom eh, ci lu jaar yoon te it yàlla dimbali ba ku ñuy jëflantal rek ñuy jëflante ak moom ci dëgg ndax dëgg dëgg mooy loo xam ne si euh, mooy mujj te mooy njëkk xanaa di ñaan bu baax a baax a baax suñ borom defal ñu tawfeex te defal leen xewal seen site biit euh, ñu leen di xamal ni fa ngeen bëgg yegg daan fa yegg ndax ñun dañuy ay taalibe lu ñu am sëñ Tuubaa te it Sëriñ touba mom yalla da ko yàgg teral li lepp ci ay terangam la ku dam ko xamne ci tolon nga fo xamne ci manam maanaam sax bu joge ci yow touba bi xagnon nan lako tay ji nga am ay télé ki rajo yo xamne ci foko soxla ko soxlaa fekk la fa lolou day nak sante yalla kon sante nan bu bahah bahah bax tay te di jégglu ci yi lu ci dënk rek ñoo xam ne doomu aadama la euh, te it weesuwu la jum ak garaat bu mu mën a am lu ci jaar yoon it nu euh, sante ko yàlla te it di góorgóorlu bu baax a baax a baax te ñu euh, li ñuy nit ki yaakaar di ñëw ci yow ngay jëflante ak moom lu baax rawatina ci ci lu dëggu lu tegu ci yoon ndax ñaan kat ñetti mbir la. ki lu, ki koy ñaanal aajo ji ki ñaanlu na xam li ko tax a jóg te bañ ko xeeb ki koy ñaanal na xam aajoom te bañ ko santas aajo ji nag ñu teg ko ci loxol sun borom euh, bu ko defee lépp dana mën a jàppale alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf jërëjëf euh, sëriñ Cheikh Lo Gossas euh, di kàddu sëriñ Cheikh ñu xam ñu sangaat yëpp xam kon mbokk ñu doon seetaan ñu ngi doon ànd ak ñoom ci seen émission Asrar leen jox dig daje bu beneen yoon ci beneen numéro jërë ngeen